axousubillah min asheytaan irajim bismillahi irahmani irahim alhamdulilahi rabilalamina wassalaatu wassalaamu ala alhaadi al amin sayidina muhammadin almakin waala alihi wa saxbihi zawi ridwaani wa tamkin assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki M Media Group Nour Daarayni ñoo ngi sant yàlla subhanahu wa taala di jullit yonentam boobu sallallahu alayhi wa sallama di leen ziyaare di leen ndokkeel di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu xaq di ñaan yàlla subhanahu wa mu nangoo ñu suñu jaamu yàlla te jéggal ñu suñu rëcc-rëcc dellu rek ci liggéey bu sell bi ñu yàlla boole di ñaan yàlla subhanahu wa yal nañ ci yàlla gën a jàppale gën ñu koo dëgëralal gën ñu koo sellalal ba lépp li nga xam ne lii moom lañ ci niba rek ci liggéeyal islaam yàlla defal nu ci lu kawe suñ njort jàppandal ko nu suñu njortu ba fiñ ko bëgg a àggale fépp daal ñu mën ko fa àggale di jël nuyoo boobu ak ziar boobu rek di ko teg ci loxol kilifa gi a Cheikh Abdoul Ahad Mbacké eh, di ko ñaan mu jotlil ñu ko mbokk yi ci biir liggéey bi yépp waaye tamit di ndokkeel mboolem mbokk yi nga xam ne yi ñoom lañu bokk liggéey bu sell bi muy góor yi ak jigéen ñi ci taxawaay bu rafet biñ ci taxaw ak yittewoo giñ ko yittewoo ak jàpp giñ ci jàpp ak niñ ko euh, fonke euh, di ci liggéeyal sëñ bi bu baax a baax di ñaanal nag mu Ngom ñu ngi nga xam ne nii moo xalaat xalaat bu rafet bii ak liggéey bu rafet bii te di ci tàbbal képp comme yaakaar ne rek e, mën nga cee bokk ñu koy ñaanal moom itam yàlla dolli koo jàppale dolli koo dëgëral ba moom mu am ci lu kawe njottam ci e, liggéey bi mu ci mébét muy liggéeyal xaadimu rasul te ñu ànd ko moom di jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa ñu di leen dole nag di leen ndokkeel tet yi ci weeru sell wi nga xam ne bi moom la nu yàlla baaxeete ba ñu fekkee ko muy weer wi nga xam ne bii ci la ngën ji muy muy sayduna muhammad aw sayduna muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ci àdduna mu den euh, lampab àdduna boobu leer ak àdduna googu ak nga xam ne gii euh, yàlla danu ko baaxe nga xam ne yërëm nu rek ak bëgg noo dimbali ak bëgg nu defal tawfiix àdduna ak alaxira moo tax mu tànn ndawam lu sell loolu mu gënal ko ñëpp mu yónni ko ci ñun mu baaxe nu defal nu leer rek maanaam lu bokk ci aw xeetam waaye tamit ñu gëm ko topp ko di ko roy ci lépp loo xam ne ni maanaam moom lañ ko war a roy ci luy defal suñu mbiri àdduna ëllëg àddina ak alaxira jëmm jëmm jooju nga xam ne ji yàlla da ko ne wama arsalnaaka illaa rahmatan lil alamina yónni mu la lu dul maanaam yërmaande joo xam ne jii dama ko bëgg a defal bindee waaye tamit ne ko wa ma waaye tamit ne ko mbindeef yëpp muy nit ñëpp ci laa e, sama yërmaande jooju maanaam e, nga mën leen teg si yoon yoo xam ne yii buñ caawee rek maanaam mën na la daje jooju kon bu nu yàlla baaxee nu àggati ci weeram waaye tamit bésam di jubal nu jege ko lool yal na nu yàlla doole dimili ba bés boobu ak guddi goo nga xam ne gi dañ koo war a taxawee ci màggal ko ak fàttaliku ko yàlla jàppale na ci ba mën koo màggalee fàttalikoo ko ni nga xam ne ni maanaam mooy dëppoo ko la nga xam ne lii ca la nuy dajeeg yërmande yàlla ja ak ngërëmam ak njëggalam waaye tamit sunu sopp <laughs> Seyduna Muhammad googu gën a dëgër ñu gën koo sopp gën koo bëgg gën koo gëm gën a mën a roy ci moom loolu yal nañ ko yàlla gën a jàppandal di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon tey ñu ñëw tàbbiwaat ci liggéey bi rek di ñaan yàlla subhanahu wa mu dolli ñu coo jàppale bu baax a baax su ko defee tey laaj yi fi jóge ci mbokk yi ñoo ci jëkk am laajëb suñu mag ji suñu mag ju baax ji suñu kilifa gi sëriñ ndiir tuuba mbusa ndiir ñoo ngi koy ziare di ko ndokkeel bu baax a baax di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla gën a yàggal ci suñu kanam bu baax a baax muy suñu mag joo xam ne ji yàlla danoo boole nu bokk waaye tamit eh, doon ay xarit eh, yàlla boole ñu daal ñu déggoo lool eh, yal na nu yàlla doole defal tawfiix ñuy rafetlu dëgg-dëgg ab taxawaayam ak ak yittewam lu baax bëggam lu baax ak it wax dëgg yàlla dimbali goo xam ne gi mi ngi koy dimbali dinu soññ saa ne ci liggéey bu sell bii nga xam ne moom la yàlla boole kon yàlla na ko yàlla gën a jàppale bu baax a baax ak mbokk yépp bi jaay sayyidina Muhammad sallallahu wa sallam moom tey laaj bi mu firatal bi ci jëkk mooy euh, day jëm ci wàllu atte muy lu yéeme lu doy war loo xam ne lii atte dafa doy waar lool te ñun jullit ñi euh, rawatina ñun ñu nekk ci yeneen yenn yenniti réew yi lu mel ni ay Sénégal ak yeneen réew yi mel noonu maanaam xam naa dañ ci am jafe-jafe lool ndax daanaka booy xool euh, euh, suñu réew moom wax dëgg li nga xam ne lii moom lañ fi àttee maanaam du daray sharia maanaam ay àtte la yoo xam ne yii maanaam doomu aadama rek moo ko xalaat te mën naa am doomu aadama ba ko xalaat sax doonut koo xam ne kii ku gëm yàlla la waaye doonu koo xam ne kii kuy dund sharia la kon nag kooku bu fekkee ne dafa jël ay atteem teg ko yow nga nekk ci réew moo xam ne maanaam atte moom moom rek moo fay dox loolu moom dafay nekkam natt bu rëy rëy boo xam ne bi daal dañuy ñaan yàlla subhaanahu wa taala nga xam ne moom lu ko neex mu def rek mu jéggal ñu dolli ñu dimbali dolli ñu sutural ba euh, wàllu atte moom ñu bañ leen doon ñoo xam ni dañ koy doon ñu dal leen war a fexe ñu jullit ñi euh, ñun taalibe yi euh, ñaan yàlla fexe bañ doon ab àttekat waaye tamit doole ñaan yàlla fexe ba yàlla buñ dugg ci lenn loo xam ne dañ cay àtte wala keneen def ko ba ñu war ñu caa àtte loolu daal dañ ko war di ñaan di ñaan yàlla mu loolu ñu jàppale bu baax a baax ndax euh, wax dëgg yàlla yàlla ni wax ne maanaam comme ñetti aayam yi mu indi nii ñett yooyu mu ci wax moom maanaam dafa doon lu sax loo xam ne lii dafa yéeme dafa doy waar ndax ne ne képp koo xam ne kii yaa ngi attewoo ci loo xam ne lii du charia maanaam du maanaam yàlla wàccew ko da caa def ñetti tomb yoo xam ne yi benn baaxu ci muy benn bi ne ku koy jëf kuy def noonu ku cay atte koy atte ci lu dut li yàlla wàcce da ngay doon yéefar benn bi muy waxaan ne ab euh, tooñkat nga beneen bi mu waxaat ne ab saay-saay la kon ñett yooyu nga xam ne yi moom la euh, alxuraan wax ne képp kuy atte te atte woo ca euh, ñett yooyu rek moom maanaam moom da nga koy daal di doon su ko defee it nag ñu mën a am dala xel itam ci ne ñu dolle sant yàlla ci comme li ma doon ñaan ne naan yàlla buñ doon ab attekat waaye yàlla buñ ñu atte ndax nag nii ay wàcce nii moom dafa dal ci ñi nga xam ne ñii ñoom ci ci ci ñi mu jëkkee maanaam jëkk dal ci ñoom mooy àttekat yi ndax da ne wa man lam yaxkum bi ma anzala la maanaam koo xam ne kii yaa ngi atte te woo ci li yàlla wàcce waaye waxu wa man lam yaxtakim maanaam koo xam ne yaa ngi atte kon ñun maanaam ñun ñi nga xam ne ñu doonuñu attekat mën nañ ne maanaam foofu maanaam duggagun fi ndaxte dane kuy atte kon attekat yi ñoo moom loolu waaye waxut kuy attewu kon li ma doon wax naan nañu ñaan daal yàlla bu ñu doon kuy atte waaye yàlla buñ ñu attey sax nag ndaxte buñ la attey day mel ni da ngay bëgg a dugg foofee waaye su boobaa it comme ni ma ko waxee nga xam ne suñu réew yi moom génn noo fi te mënuñu koo génn te mënunoo aw feneen te amuñu sañ-sañ maanaam di fi dogal dara daal li ñu war di ñaan daal mooy yàlla bu ñu atte te bu ñu kenn atte rek loolu daal mooy li nga xam ne lii xam naa mooy solution bi nga xam xaw a mën a génn te nuy tuub tey jéggulu su ko defee daal euh, bu dee ci wàllu attelé fii ci Sénégal moom wax dëgg yàlla teguñu ko ci fi nga xam ne fii moom la yàlla wax ne nañ ci attewu kon loola moom li war ab jullit bu gëmee yàlla dëgg dëgg te doyloo ko wéeru ci moom la ci gën mooy bu fexee ba mën a doon bañ a doon ab attekat waaye tamit di moytu lépp loo xam ne dina waral ñu koy attee boobaa Euh, yàlla mën na ko defal tawfeex ba tëkku yooyu ni moom lay lay tëkku ci aaya maanaam kooku war caa mën a mucc xam nga kon atte moom dafa garaaw ci ab jullit ndax boo doon ab jullit nekk ci réew moo xam ne mii maanaam duñ fa atteel islaam duñ fa atteel yàlla wàcc yow ngay doon uh, ab attekat su boobaa yow day mel ni ñett yooyu ngir nga mucc ca day xaw a jafe lool tey loolu yonente bi waxan noonu uh, xaadin fil jannati wa xaadiyaani fin naar noonu yonente bi noonu na bu ñu demee bés penc ba atekat yi dañ leen def ñetti kuréel ñetti kuréel yooyu ne ne benn bi rek moo ci dem àjjana waaye ñaaneen ñaari kuréel ci des euh, sawra lañ leen di yóbbu kon defe naa loolu boo koy xool ak aaye mooy wax ne dañuy méngoo lool kon la doon war dal mooy euh, wallu àtte daal ab jullit war koo mën a moytu te jéema nekk ci leneen loo xam ne ni mën nga caa jéem a yëngutu ci di ci am sa wàllu wërsëg nga xam ne nii moom la la yàlla baaxee su ko defee dañuy wax ne nag alxukaamu bi gayri ma anzala laahu aqsaamun taxtalifu axkaamuhum bi xasabi itiqaadatihim nee na ñi nga xam ne ñu nag lañuy atte te la ñuy atte maanaam doonut loo xam ne lii lu yàlla wàcce la muy alxuraan ne ne ay xaaj lañu yu baree baree bare ne na itam seen atte yi tamit day wuutee kem na nga xam ne ni moom lañu ñu gis nga ci xam nga bu fekkee ni dañ ne seen atte day wuutee ku ci nekk ngay atte ca la nga xam ne ni maanaam moom nga gëm ne ci lañ war a atte kon xam nga loolu du doon loo xam ne lii lu ñu ba teg lii mooy li nga xam ne lii ci lañ war a dox du ca xam nga bu doon ni alxuraan la moo ko teg moom maanaam ak wuute du ci waaye fii ne na gis nga ci nee na taxtalif ahkaamuhum bi xasabi itiqaadaatihim nee na la ñuy àtte maanaam dañ cay wuute dafa wuute kem na nga xam ne lii maanam mooy seeni pas-pas kon te gis nga loo xam ne lii doomu aadama rek moo ko jël teg ko la su kii ne lii lii moom la ñu war a àtte lii lañ war a àtte kon gis nga ci kon doonu loo xam ne lii lu jag la lu normal la loo xam ne li maanaam te lañ war a àtte loolu tax yàlla daal di tëkku ne ku fi bàyyi lii nga xam ne lii moom laa wàcce ngir ñu di ci àtte rek dangay ngay doon ab yéefar da ngay doon ab tooñkat da ngay doon ab saay-saay ndax jéem la ñu àtte bu dee nim réew la ñii nii lañ koy àttee bu dee meneen ñeneen di ko àttee leen neneen wala même ci biir réew mi sax ñiy àtte wuute ci àtte boobu nga xam ne bii mënul ñu àtte kon gis nga ko day daal di dikk nekk ak manque te goo xam ne gii tegul ci yoon te it jaarul ci aw yoon dégg nga kon nene kon faman xakkama bi xayri ma anzala lahu yara na anna zalika ahsanu min charrillahi wa huwa kafirun inda jumhuril muslimina nee na képp koo xam ne kii ab jullit nga di atte ci li nga xam ne lii yàlla wàccew ko maanaam di atte ci leneen te yow la nga gëm mooy yow kat loolu ngay atte maanaam moo gën ñuy atte ci charia nee na moom kooku jullit yépp maanaam boroom xam-xam yi jullit yépp dañuy daal di d'accord ne kooku mu ab yéefar xàqan la boo xam ne bii maanaam raxut dara waaye itam waxaat ne waman xàqama bi gayri ma anzala llaahu ittibaan lil hawa aw li rashwatin aw li adawatin baynahu wa bayna almaxkuumi alayhi wa huwa yaalamu fa innahu xam ne kii ma ngay atte waaye la muy atte doonul loo xam ne moom la yàlla ne nan ca atte ngir topp bànneexam maanaam bànneexam rek la topp di ca atte aw li rashwatin wala muy koromp maanaam di jël ay neexal yoo xam ne yii buñ ko joxee neexal ba ca loolu lay sukkandiku di ci àtte nam ko neexee aw li adawatin baynahu wa baynal mahkumi ali wala buñ ko indilee koo xam ne kii am noonam la maanaam mu war koo àtte day xoole rek kii samam noonu la maanaam euh, da koy àtte ca na nga xam ne lii noonoo googa la cay lay doxale diggante ma moom àtte ko ca tey loolu yëpp bi mu koy def mooy bi muy àtte bu dee ni ci bànnee xam la xam na ne ci bànnee xam dong la ko teg waaye bu dee itam ci neexal la koy teg xam na ne ci neexal la koy teg wala bu dee ci noonu la koy teg xam na ko ne nag fa innahu aasim ne ne kooku kuy yàlla la yootabaru min ahlil maasi ne ne kooku dañ koy jàpp ci ñi nga xam ne ñi ñooy dàq moy ci kaw suuf wal kabair faqad ata kufran asxara wa zulman asxar wa fisqan asxar dana kooku daal ñett yàlla waxan ci muy kuy attewoo ci lu yàlla wàcc ab yéefar la ne ne moom andi na kéefar goo xam ne gi gu ndaw la ak tooñ goo xam ne gii gu ndaw la ak ak caay goo xam ne gii gu la ndax maanaam xam na ne maanaam xam na yàlla wàcc na loo xam ne lii ca lañ war a atte waaye maanaam nungu na it ne dañ caa war a atte waaye maanaam atte wu ca waaye dafa topp lay rek ñett yee mënul wax mooy dafa bàyyi loole ñu nga xam ne moom ca lañu war a attee topp bànneexam wala ay neexal wala di topp ak loolo ba tax mu cay atte ne ne looloo tax day dikk ci njët yi yàlla wax waaye gu ci nekk moom bu dee ni wedd gi wedd gu ndaw lañ ko koy jàppale bu dee ni tooñ gi tooñ gu ndaw lañ ko koy jàppale waaye bu dee ni caay-caay gi caay-caay gu ndaw lañ ko koy jàppale ndax na mu gëm ni euh, yàlla am na charia euh, am na ay atte yu wàcce waaye maanaam atte wu ci ngir sabab yi lay tax gis nga kon ñooñu atte ci li nga xam ne lii lu dul sharia la rek maanaam dañ leen def ñaari xaaj noonu rek ki nga xam ne kii lim gëm mooy maanaam sharia moom waree su cee wala boog atteb sharia sax amut amut euh, waree kooku ne ne mooy ab yéefar bu maga lay doon waaye tamit ab tooñkat bu mag lañ koy jàppe ak ab saay-saay bu mag a mag tey loolu mu ne ne boroom xam-xam yépp d'accord nañ ci waaye itam ki nga xam ne kii nag gëm na ne moom yàlla kat wàcce na lu ñuy attewoo lu ñu war a attewoo waaye dafa gis ne moom kat xañ na eh, mënta attewu ci loolu ngar maanaam bànnee xam moo tax walla ñu di ko ci ay ñu koy neexal ay neexal yoo xam ni bu dee atte ci lislaam duñ ko du ko ca mën a am wala <coughs> eh, muy atte ngir ab koo xam ne kii dafa noonoog moom ne kooku jéem gëm na ne maanaam yàlla am na waaj lu mu wàcce ñu war ca attewoo waaye da ko fa bàyyi ngir sabab yooyu tax ne ne bu baa moom maanaam comme wedd gu màggee mu doon waxal kee moom gu ndaw lañ ko koy defal waaye bu dee ni caay-caay nga gu ndaw lañ ko koy jàppale ak tooñ goo xam ne bii gu ndaw la waaye gum ci mën a doon rek jëm eh, am na moom daanaka gu màgg gu ndaw ga moom eh, ñoo rek ndax yaakaar naa loolu yàlla wax rek maanaam day daal di sax ci ñaari côté yëpp boo ko xoolee ndax moom yem def nga ko rek maanaam gu mag ak ndaw ga daanaka la ñooy xaw a yem rek kon bu ko defee euh, li ma waxoon rek daal ñu xaw cee mën a dalal xel ci ne ku doonut ab attekat te doonab jullit ku doonab jullit te doonab att te doonab attekat man yàlla mën naa dogal nga mujj ci loolu ndax wa man lam yaxkum la wax ko attewul maanaam attekat yi la cay tëkku kon euh, la ma waxan fee rek ñu gën a góorgóorlu gën a am pas-pas ab diine yi dund charia dund lislaam ba kum mën a doon ci ñun euh, nga mën a fexee rek euh, wàllu atte moom nga bañ ko fexe doon waaye tamit dit mooy lépp loo xam ne war dina waral maanaam ñu di la atte su ko defee beneen laajam bi ci toppal day wax ne yaa ayyuhar rasulu ballix ma unzila ilayka dafay génnewaat beneen aaya boo xam ne bii yàlla da cee wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow sama ndaw lii na nga jottali lépp loo xam ne lii wàcce naa ko ci yow daal di continuer waaye aaya ba ne ko wa in lam tafaal fama ballaxta risalaati wala risalatuhu am na ñu koy bind ne ko nag loolu boo ko defut maanaam leetar yi nga xam ne moom laa la jox maanaam euh, kon jottali ko maanaam boo deful ndigal lii ma la wax waaw loolu day muy laaj ne nag loolu nga xam ne lii yàlla da ko wax ne ko wàcce naa ko ci yow na ko jottali mbindee fi lan la doon loolu moom buñ koy tënk mooy mën nañ ne charia la rek mooy alxuraanul karim alxuraanul karim moom la ñuy wax alwaxyu mooy li ko yàlla doon yónnee jibril mu ñëw dik ko indil dik ko digal mu war ko jottali e, mbindee yi muy nit ñi dañ koy wax itam ar risalat muy ab leetar boo xam ne bii mën nañ ne mooy alquranul karim te it bu ñu ne alquranul karim mooy ashariatu te mooy lépp loo xam ne lii ci la jullit war dox di ca yëngu ci ay mbiri defee ay doxalina maanaam la muy def la muy wax yépp ñu koy wax sharia tëral la ne lu mu mën a doon maanaam nii nga ca war a taxawee kon daal bu ñu tënk li nga xam ne lii euh, moom la yàlla wàcc ci moom ne ko jottali ko ko maanaam dañu naan alxuraanu karim rek ak yépp ndigal yi nga xam ne yii doon la ñëwaat euh, di jaar ci jibril muy ñëw di ko wax te maanaam euh, doonul alxuraan waaye boo koy xool boo ko alxuraanu karim dañuy méngoo rek maanaam benn la ñu doon duñu am genn atte ndigal loolu nga xam ne nekk yàlla da koo digal seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko jottulil lépp loo xam ne lii maanaam wàcc naa ko ci yow seydina muhammad noonu ko ko yàlla digalee maanaam noonu la ca taxawe ba lépp loo xam ne lii yàlla da ko wasa masa wàcce ci moom rek maanaam loola nëbbu ci dara lépp feeñal ne ko lépp joxe na ko lépp wone ne ko te lañ cee tegtaloo mooy bu fekkee ne yow ab jàngkat nga boo dee jàng suuratu abasa bu fekkee ne yonente bi dina am lenn lu muy nëbb ci li nga xam ne lii moom la yàlla wàccee kon suratu abasa yonente bi dina ko jéem a nëbb di ci di jéema a def ay pexey ndax suratu abasa moomu ci niñ ko mën a waxee ngiram njàngale la te alxuraan nit moo ko indi mooy suratu abasa foofu mu ne yàlla da caa yedd yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ay yeddaange yu mittee mittee mitti suratu abasa boobu dañuy wax ne bu yonente bi doon am lenn lu muy nëbb rek ci la yàlla wàcce ci moom ne ne kon abasa moom dina bokk ci li nga xam ne lii moom lay da koy nëbb du ko wax du ko génne du ko joxe du ko wone waaye tëral gis nga biñ ko wàccee ci moom it maanaam da ko jox jullit ñi jàng ko mu feeñ leer nañ ñëpp xam la nga xam ne lii maanaam moo nekk ca saar woowa nag li ci li tax ñu ne yonente bi yàlla da ko caa yàlla da ko caa da ko caa yedd mooy dafa am bés benn gumba ñëw ci moom fekk ab jullit la maanaam ñëw ci yonente bi ñëw di ko ziyaare si mën nañ koo wax ak bëgg a dolle siku si ci diine ngir bëgg yonente bi maanaam waaraat ko dolliwaat ko lu mu gën a mën a gëmee gën koo mën a topp waaye gumba googu ndeysaan bi mu ñëwee fi yonente bi daa fekk yéefari xuraysiya maanaam yéefari màkka yi nga xam ne ñooy kilifa ya euh, gën a weddi Seydina Muhammad euh, fekk bés boobu ñoom itam ñu ñëw ci Seydina Muhammad léegi bés boobu nag na Muhammad ci kilifa yéefar yooyu nga xam ne mënu leen am fenn mënatu da waxtaan ak ñu mënatu leen a woo woon na leen a woo ba sonn nungu ñoo dugg ci lislaam bés boobu ñu ñëw këram nag na Muhammad daal di yaakaar am yaakaar lool ne maanaam ñii tey moom eh, am na occasion boobu tey xam naa moom dinañ tuub dinañ loolu nag yitte leen ko lool ba tax eh, bi gumba googu ñëwee doon ab jullit eh, di wax ak yonente bi yonente bi sallallahu alayhi wa maanaam maanaam faalew ko daal comme niñ ko mën a waxee maanaam euh, waxut ak moom ba dem sax ba bi gumba gi ñëwee mel ni dafa mel luy dagg wax yonente bi maanaam bëgg a wax ay soxlaam maanaam ñu mën na yonente bi daal xam naa xaw naa gis boppam ci xaw koo mere ci daggoo xam ne gi moom la dagg waxam jaww joon wax ak kilifa yu nga xam ni moom lañ fa fekk bu ko defee ci jamono yooyu rek noonu ci xew-xew boobu noonu ci jataay boobu noonu maanaam ci diggante yonente bi ak gumba gi ak kilifa yéefar yi nga xam ne ñëwoon nañ ci yonente bi bi loolu amee la surtout abasa wàcc daal di wax ne ah yow mooy abasa watawalla an jaahul ama ne ko ne gis ngeen ko moom day maanaam ñë ñàngal na kanamam maanaam ñagasal na xar kanamam ci kanam gumba gi nga xam ne gi maanaam ñëw na ci moom te ab jullit la watawalla daal di koy won ko eh, won ko ginnaaw bañ koo faale bañ koo tontu eh, bu ko defee gis nga ci noonu mu commencé nekk ay yedd yoo xam ne yii yàlla mi ngi ko yedd Seydina Muhammad ci saar woowu xam naa mbokk yi buñ duggee eh, comme surtout abasa boobu dinañ ca mën a gën a yaatal lu baree bari ci foofu nga xam ne fii digganteem ak yoon digganteem ak gumba gi ak kilifaay xuraysi yooyu nga xam ne ñëw ñëwoon ci bés boobu te ñoom booba fekk na ne euh, gumba gee maanaam yàlla moom jéem gumba gi mooy ab jullit te dafa ñëwoon di dolle ko su ngir diineem te ñee xam ne ne maanaam ay yéefar lañu ñu gëm maanaam euh, gumba googu moo gënal yàlla fuuf ñu nga xam ne ñu ñoom la yonente bi yitti woon ci diggante boobu nag ni ko yàlla ni ko yonente bi du mooyu woon ko ginnaaw yàlla daal di wàcc saar woowu daal ko ci yedd ay yeddaa nga yu méttee métti moo tax euh, bu ko defee dañuy wax ne kon euh, loolu mu wax ne ko euh, na nga jottali lépp loo xam ne li wàcce naa ko ci yow rek su fekkee ne am na lu mu nëbb rek loolu dina bokk ci la xam ne lii moom lay nëbb bokk na ci sam lu ñuy mën a tegtaloo ci yonente bi ne daawul nëbb leen loo xam ne li wàcc nañ ko ci moom bu fekkee da nga jàng suratu abasa mooy wax naa ko léegi waaye suratu mudathir itam boo ko ja gise ko yaa ayyuhal muddathiru xum fa andir wara rabbaka fa tahir wa rijza fahjur wa laa tamnun tastakthir an rabbika fastakthir gis nga mudaththir mooy koo xam ne kii day muuru noonu rek di lëkkaayu yàlla ne ko yow mi nga xam ne da ngay muuru nii di lëkkaayu rek baal sa muuraay bu bari bii ak euh, lëkkaay bi mooy suratul muzammil moom itam muzammil mooy kuy lëkkaayu mu ne ko bàyyil yita maanaam jóg taxaw ci li nga xam ne lii euh, moom laa lay liggéeyloo waaye itam booy xool ay bi gën a yéeme ci loo xam ne lii yonente bi waral na koo mën a nëbb muy bii may wax mi ni way wa iz taqulu lillazi an'ama allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillaaha wa tuxfi fi nafsika ma laa mubdihi gis nga yonente bi sallallahu alayhi wa dafa am koo xam ne kii dañ ko doon euh, ko ko doon doomale maanaam comme laaj boobu nga xam ne bii suñu xadim ñu nga ustaas laaj yu am solo laaj na ko muy loolu ñuy wax ak at nii muy jël nit adapte ko ci keneen bëgg mu doon bàyyam te juru ko nga xam ne loolu moom charia nangu ko euh, aaya bi lu mel noonu moom lay wax te gis nga lii ci am nii mooy alxuraan dafa wàcc ne yow Muhammad yaa ngi wax jëmm ji nga xam ne ji man yàlla maa ko defal xiwal yow itam nga defal ko xiwal ndax defal yooyu mooy yàlla def na ci leeram mu war a mën a gëm yàlla waaye yow itam nga di ko waar ba mu gëmma loo taxal anaam allahu alayhi wa anaam taali wa anaam taali daal di ñëkk ne ko yow yaa ngi naan am si alayka zawjika maanaam bàyyil sa jabar maanaam fase ko léegi gis nga loolu yonente bi wax ko waa jooju muy eh, zaydu ko da bàyyi sa soxna si ne ne bi yonente bi waxee loolu zaydu ba zaydu bàyyi soxna soosu yonente bi daal di takk soxna soosu nga xam ne nii maanaam moom la ko bàyyi loo ak la ca yàlla lépp gis nga ci xam nga kon loolu bu fekk ni am na lu muy nëbb itam histoire bu mel noonu ñëw ci alxuraan maanaam defe naa loolu dina ko war a mën a jéem a nëbb kon daal loolu ci tënk ak lépp lu ca mbokk yi gën a mën a yatalaat daal mooy yonent bi daal lépp loo xam ne lii yàlla wàcc na ko ci moom ak lu mu mën a doon bu dee ci wàllam lu féete ci moom itam lu muy mitti mitti ci moom it loolu jottali na ko gën di jottali ci na nga xam ne nii nañ leen ko war a jottalee su ko defee su boobaa ñun jullit ñi ñun ñoo ca des war a xool taxawaay ba nga xam ne bii moom lañ ca war a am mën ca góorgóorlu ba taxaw ca taxawaay boobee ndax mooy suñu royu royukaay bi nga xam ne bii moom la na war a roy ci lépp loo xam ne dañ koy def wala ñu di ko wax. beneen laaj bi ci topp suñu jëwriñ sëriñ Mbaye Diagne moo koy laaj ñu ngi koy siyaare bu baax baax moom itam. di ko ndokkeel moom dafay wax ne dañ ko ne bàq sobe la maanaam suuf su tooy bàq sobe la ñu koy wax ne ko xam naa loolu de moom xam-xam moom wax dëgg maanaam kenn mënta peeg lépp kenn mënu koo xam itam ndax dañ ne wa faw kulli zi ilmin min alim wa fawqa kulli zi ilmin min nit ki moom ne na moom mën doon rek maanaam loo am ci xam-xam rek maanaam am na ku la ko waaye wax dëgg yàlla maanaam bàq muy suuf su tooy sobe la daal maanaam loolu ñun amaguñ ci benn tegtal amaguñ ci lenn luñ ci mën a sukkandiku ci li ñuy jàng ci wàllu fiqh ak yeneen yi ñuy jàng yépp daal wax dëgg yàlla dajeeguñu benn masala wala benn buntu ci fiqh euh, mu ne daal euh, bàq moom sobe la te xam naa dina jëre xoolaat bu baax a baax jël koo gëstuwaat bu baax a baax tam ndax xam naa bàq moom bu fekkee ni bu fekkee ne day doon sobe moom léeg-léeg xam naa kon dina am jafe-jafe lool ci maanaam fan la ñuy amee fu ñuy julleeg fan la ñu war a mën a nekk ci kaw suuf di fa taxaw wala ñu di fa toog wala ñu di fa jullee kon daal loolu moom laaj boobu moom euh, ñu ne ko bàq daal sobe la nanu gën a gëstuwaat bu baax waaye ñun daal amaguñ ci benn cëslaayal man ne euh, loolu lu saxala te lañ ci lañ ci mën a jàppandi mooy daal loolu moom saxut loolu lañ ci mën a jàppati ba keroog ci gis leneen loo xam ne ni xañ na lu ca yees la kon laaj boobu itam lu ama am solo la waaye tamit eh, ndax dina war a tax maanaam ñu war a mën a gës gën a gëstu waaye tamit eh, waaye dina taxit ñu mën di teqamtal di xalaat bu baax a baax yenn ti wax yi nga xam ne yii dañ koy wax ndax yaakaar naa buñ ne suufas bàq sobe la defe naa ku ci sam xalaataat baax a baax euh, yaakaar na day mel ni daal wax ji du méngoog noonu nga xam ne nii ni la demee kon na nañ yàlla doon la defal tawfiix euh, may ñu ak ràññee ak dégg ak ak xàmmee di jaay seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te nii mu def am solo lool ndax lu mu mën a doon rek maanaam su fekkee ne yow amoo ca lu la leer nga yaakaar ne am na fu mu mën a leere wala fees ñu ko mën a leeral nga laaj leen ko da cee am solo lool ndax dina tax mu gën a yaatu dina tax mu gën a tasaaroo te wax na yaakaar naa ne lu mel nii moom ku ko dégg boo xalaataate ci sam xel moom di jàpp ne lii moom xëy na doonut loo xam lii lu war a mën a nekk la kon bu ko defee daal ñun daal lañ ca xam mooy euh, gisaguñu fenn foo xam ne fii jàngal nañu fa ñu ne bàq daal sobe la kon loolu moom duñ ko ko mën a gun a saxal duñ ko mën a jàpp itam ne noonu la demee waaye du tere it dinañ ci jéem a def suñu gëstu bu baax a baax ak suñu gën a mën caa yokk bu baax a baax bu soobee yàlla incha allah. beneen laaj bi ci topp Bachirou Faye moo ko fi yónnee moom itam ñoo ngi koy ziar bu baax a baax moom dafay laaj taa u sadaxati li mañ noonin yashrabul xamra awi duxaan day laaj maanam yow mi saraxe ne ndax am nga sañ-sañat ki xam ne kii dafa dof maanaam àndut ak am xelam waaye day jëfandikoo sangara wala cigarette ne ndax kooku maanaam am nga sañ-sañat euh, bu ñëwee di yelwaan di saraxu maanaam nga jox ko ab sarax waaw bu boobaa dañ koy wax ne ko rufia alxalamu an xata yufiqa wannaimi xata yastayxida wasabi xata yaxtalima xam naa de ñetti ñi moom dañ ne maanaam kenn du leen bindal dara ci wàllu maanaam lu ñuy def mu ne ni ay bàkkaar la wala loo xam ne dañ koy def ñu mën ne lu baax la ñoom moom duñ leen bindal dara muy ñetti ñi mu limaale ci almañ noonu ki nga xam ne kii dafa tàqati ko ak am xelam fekk xel mu dellusiwut maanaam duñ ko bindal dara waaye tamit ki nga xam ne kii dafa nekk ci jamono di nelaw nelaw yooyu feeg mi ngi ci nekk di nelaw feeg yeewagut duñ ko bindalati dara waaye tamit gone gi feeg mi ngi doon gone maanaam mesure agut maanaam moom itam deesu ko bindal dara waaye kon jéem moom ab dof la àndut ak xelam te it euh, tàmm na loo xam ne lii maanaam lu baaxut la muy naan sangara wala muy cigarette maanaam yow mi nga xam ne mii nekk yaa ngi ànd ak sam xel gis nga sàngara ne nañ moom jullit waru koo laal ci genn fan maanaam waru ko wut waru koo wutal kenn waru koo jënd waru koo toxa waruta lekk njëgg waru caa laal dara dara daal ne nañ lépp lépp lépp ab jullit da ko war a moytu dafa araam ci moom kon ku mel noonu muy ku àndut ak ab xelam bu ñëwee di yelwaan soo ko mënee xam soo mënee xam loo xam ne li maanaam lu mu soxla la lu dul ñaar lu dul du am tox muy cigarette nga fexe loola nga jëndal ko ko nga wuutal ko ko waaye mi nag di jël xaalis di ko ko jox te mu leer la leen boo ko joxee moo dem jënd ji ko sàngara wala mu dem di ko jënd ji cigarette su boobaa loolu moom du dina ko may maanaam doo ko euh, du sañ a def ndaxte na ne laa yajuuzu i'aanatu ahadin alal maasiyati maanaam bu fekkan ni eh, loolu maanaam ak ma yàlla la na naan sàngara ak ma yàlla la tox cigarette ak ma yàlla la donte kii am xelam àndut ak moom waaye mi ngi koy def waaye mi ngi def loo xam ne ak mooy yàlla la kon yow dafay mel ni yaa koy dimbal ci lu baaxut loolu nga xam ne lii baaxut charia nangu ko mu di ko def kon daal bu mënee nekk lañu war mooy ku mel noonu su yelwaan ñu xool lu mu si yittewoo ñu wutal ko loola te bañ ko jox xam xaalis wala loo xam ne day dem maanaam di ca dimbali ko di ca mën a am sàngara wala cigarette soosu kon yal na yàlla doole jàppale bi jëy Seydina Muhammad sallallahu alayhi laaj yi toppaat mooy laaju Sëriñ Badara Jaay oustaz oustaz ñoo ngi bu baax a baax ndax mën nañ la dégg laa dégg bu baax a baax na ngeen defal yitte yi waaw Sëriñ Badara Njaay moom dafay laaj bokk na ci ay laajam ki nga xam ne kii na ne julli timis ñaari raakaat da ko caa raw maanaam daa ñëw ci julli mbooloo gi fekk imaam julli na ñaari rakaa nga xam ne benn rakaa la ca am ne ne kooku ñaari rakaa yi nga xam ne yi moom lay war a fay moom maanaam moom la war a dabaatal nan la koy defee waaw julli timis ku ñëw ci mbooloo ma di ko ca julli fekk ñaari rakaa yi raw la maanaam nga ànd ceeg imam benn rakka léegi su imam toogee di taay bu mujj dangay ngay toog ànd moom léegi su imam sëlmalee nga jóg soo jóg nag jóg boobu ngay jóg war na ànd ak ab allahu akbar boobu moom du am ab doo ca wax allahu akbar foofu ngay jóge ngir yow sa ñaari rakka yi nga xam ne yi dalaa raw moom nga bëgg koo mottali jóg boobu nga jóg ginnaaw bi imam sëlmalee doo wax allahu akbar da ngay jóg rek daal di taxaw soo taxawee daal di jàng faatiha ak aw saar njàngin woo xam ne bi koy biral da jàng faatiha ca kaw ak aw saar ca kaw daal di toog mu nekk sa ñaareelu rakkaa yow kon yow xam nga ne foofu nga war a taaye nga daal di daal di toog daal di taaye daal di jógaat duggaat ci sa ñetteelu rakkaa boobu nag soo jóg moom da ngay wax allahu akbar su ko defee soo waxee allahu akbar daal di jàng fatiha aku saar aw njàngin woo xam ne maanaam da nga koy biral maanaam da jàng fatiha ja ca kaw jàng saar wa ca kaw daal di toog daa di taaye daa di sëlmal julli ga daa di mat kon julli timis daal ku ci ñaari rakaaraw noonu nga war a feye ñaari rakkaa yi nga xam ne yi moola raw su imaam sëlmalee da ngay jóg bañ a wax allahu akbar tari faatixa ku saar woo xam ne da nga koy biral daal di toog taaye ndax yaa ngi ci sa ñaareelu raka daa di taaye boo taaye nga daal di jóg wax allahu akbar tari faatixa aku saar jàng ko ca kaw biral ko daa di toogaat daa di taaye daa di sëlmal loolu nag am na ñoo xam ne ñii saa bu leen dalee muy ñaari raka raw na leen ci julli timis ñaare bu ñu àndee ñoom dong di mottali seen julli ga day yàqu ndax ñoom buñ jógee dañu daal di julleendoo ñaari rakkaa yooyu rek maanaam duñ doxale ab taaya ca biir te maanaam waree su koo defee noonu leen di xajjale ndax yow ñaari rakkaa benn bi mooy seen ñaareelu rakkaa te nga war a taayee da ngay toog taayee doog a doog julli bi ci des waaw boo ko defee loolu itam ñu mën ko bàyyi xel bu baax a baax ci li nga xam ne ni moom lañu ko war a fayee bu fekkee ni ñaari rakkaa yooyu mboolo la ca raw beneen laajam bi ci topp mu ngi koy laaj mu jëm ci wàllu gàmmo muy laaj mata bada asheykhul xadimu taazima mawlidi nabi sallallahu alayhi wa day laaj kañ la yone eh, kañ la xaadimu rasul tàmbalee gàmmo maanaam kañ la xaadimu rasul tàmbale di dundal guddig yonente boobu ci gàmmo ñu ne ko laqad zaharat bawaadiru inaayatihi bil mawlidi fi waqtin mubakkir xaadimu rasul nafaana allahu bi barakaatihi ne ne maanaam yittewoo goo xam ne gi da ko yittewoo gàmmo maanaam gane yonente bi salaa sallam àdduna ne ne màggal gane googu muy gàmmo da ko teel a lool da caa teel jublu lool wa aqdama fi rulwaani shababihi ala dikril mawlidi iqtidaan bi maxdumihi sallallahu alayhi wa sallam mel na mu dëgëre rek nekk waxambaane mu dëgër noonu ci la daldi jublu ci di e, fàttaliku e, gane àdduna googu nga xam ne gi yonente bi gane na ko àdduna mu teele ko lool teele googu mu ko teele nag di ko gàmmoo di ko màggal ne na ko roye sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndaxte sallallahu alayhi wa dafa wax ne allazi xaala xiina suila an siyaami yowmi lithnayni fa xaala zalika yowmun wulidtu fiihi sallallahu da doon def saabu bi bisab altine jotee maanaam da koy woor bisi altine yépp sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam da ko doon woor ne na biñ ko laajee ne ko waaw yow lan moo tax ngay woor bési altine yi booba da leen tontu ne leen boobu bés mooy bés bi nga xam ne bii ci laa gane àdduna moo tax ma di ko woor su ko defee foofu mbokk yi kon mën nañ ne sallallahu alayhi wa sax nag lañu ñu naa gàmmu bidaa la xool xaddis bi nga xam ne bii rotoon na kon moom sax nag na doon na gàmmu ndax doon do jéem da doon tànn bésab altine bu mu doon bu di ko woor te lay sababas mu koy woor mooy di ci fàttaliku gane gi nga xam ne gi ci la gane àdduna loolu mooy gàmmu rek mbokk yi kon gis ngeen alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin bi nu yàlla boole xaadimu rasul mi nga xam ne mii doy na sëkk ab royukaay ñu mën a roy ci moom mën a sukkandiku ci moom lépp loo xam ne lii ak jaamu yàlla la nu di ko def ndax gis nga ne ne nii moom xaadimu rasul dafa teela na jublu lool ci di yittewoo gàmmo Euh, mu jaral ko lu ne ndax da ko doon royee kon xam nga da ko doon roy mooy mi ngi ko doon roy ci gàmmu googu kon ndax nee na ngi ko doon roy ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li mu doon def nga xam ne altine saa su jotee maanaam mu woor ko kon koor googu dañ koy daal di mën a tuddi gàmmu ndax mi ngi ko doon maanaam fàttaliku la fàttaliku ci jaamu yàlla dellu ci yàlla di zikkar di jàng alxuraan di tudd yàlla ak yeneen yana demee kon loolu mën nañ cee daal di jàpp ne kon kat sallallahu alayhi sax kat kon moom doon na gàmm ndax jéem doon na ko fàttaliku noonu ci koor kon loolu maanaam euh, ñu doole cee yàlla bu baax subhanahu wa taala kon fa ahya mawlidan nabii sallallahu alayhi wa ama asachin bu euh, ko defee li muy laaj nag muy euh, kañ la yonente bi tàmbalee gàmmo maanaam lii mooy tontu bi mooy xaadimu euh, rasul ne mu ngi tàmbalee euh, gàmmoo ci bu dee ni ci atam gàddaay gala maanaam mille trois cent un maanaam bi ñu gàddaayee ba am junni at ak ñetti téeméer ak benn ne boobu la xaadimu rasul tàmbali di gàmmo waaye tam at moomu muy atam gàddaay buñ koy méngale at mi nga xam ne maanaam miilaadi lañ koy wax muy juddug Seydina saa maanaam at moom mi ngi tombeek 1882 ak jàpp 1883 kon daal euh, loolu mooy laajam bi mooy xaadimu rasul mi ngi tàmbalee di màggal bu dee ni atam miilaadi la muy 1882 la diggante 1882 ak 1883 waaye bu dee ci atam gàddaay ga la dañ naan asachin asachin mooy atum junni ak ñetti téeméer ak benn ci gàddaay ga siin bu am tomb bi junni la siin bu amuti tomb bi ñetti téeméer la alif bi maanaam hamza gi benn la soo ko boolee mu nekk junni ak ñetti téeméer ak benn ca atam gàddaay ga méngoog 1882 jàpp 1883 daal loolu mooy at mi nga xam ne ni ci lañ la ci lañ ci la xaadimu rasul tàmbalee di gàmmo loolu nag la koy firndeel mooy bayit gii may bëgg a wax nii xaadimu rasul dañoo gis ci mbindam mu wax ne ahyaytu mawlidan nabi min asashin wan xaadali fawxal muna fii xamsashin xaadimu rasul ne ne maa ngi tàmbalee di gàmmo di gàmmo ci at mi nga xam ne mooy asashin te atum junni ak ñetti téeméer ak benn ca atam gàddaay ga waaye nee bi ma tàmbalee di gàmmoo gàmmoo gi woon xaadal yi fawran mun a fii xam sa nee na biñ demee ba ci at mi nga xam ne mii atum junni la ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci la ma yàlla defal ay xewal yoo xam ne maanaam kawe na lool lool maanaam na ma ko doon jorte ak na ma ko doon yaakaare ak na ma ko doon bëggee booy xool diggante kon 1301 ba ca 1345 ne ne ba mu àggee ci mille trois cent quarante cinq ca gàdda ga lay wax nag atum gàdda gi lay wax ne ne ci moom la ko yàlla defal ay xéwal yoo xam ne yii maanaam kawe na njortam kon gis nga euh, wéral na ko dëkkaw mu ne waxat taxisa cheikhu chehral mawlidi kullahu ayaaman lil ixtifaali wa zikri wa madaxi nabi wa salaati alayhi te nanu xam mbokk yi ne xaadimu rasul moom yémutoon sax maanaam ci di gàmmo génn guddi rek ci weeru gàmmo wi waaye na ne moom maanaam weeru yépp maanaam ak gàmmo la ko defan maanaam ne moom dafa jàpp woon weeru gàmmo wépp mu doon ay bis ak i guddi yoo xam ne yi guddi gàmmo la koy def di ca fàttaliku euh, gën ak yonente boobu sallallahu alayhi ci di jàng alquranul karim ak di tudd yàlla ak di ko tàgg maanaam di tàgg sayyidina Muhammad ak di julli ci moom ay julli yu baree baree bare daa di wax ne daani ila ixyaai daani ila ixyaai da shahri kawnuhu daani ila ixyaai da shahri kawnuhu li xayril wara zarfan xawa kulla suudati nee na daal li ma xeetal ci may màggal weeru gàmmo wi muy weeru wi nga xam ne ci la Seydina Muhammad gane àdduna ma koy dundal lépp di ko dundal maanaam di ko gàmmo ne na dafa nekk ne mooy weer yu nga xam ne bii ki nga xam ne kii làq na lépp loo xam ne di njëriñal àdduna ak alaaxira rek maanaam ci la gane àdduna ne ne loolu moo ma xiir ci euh, xiirtal ma ci may maanaam man ma far di màggal bési weer wi yépp duma ci bàyyi benn ne na itam wa kaana yukaafi u awwala man yuxbiruhu bi daalik ne xaadimu rasul dafa fonkan gàmmo maanaam ba fonk weeri fonk goo xam ne gii képp koo xam ne kii manaam yaa danga ñëw jëkk koo wax ne ko weeru gàmmo wi teru na rek maanaam keroog bi la neexal ay neexal yu rëy rëy yoo xam ne yow lu kawe sa njort la wa yaxmuru zairihi bil ataaya wasilaati ne na it maanaam saa weeru gàmmo wi terowaa képp koo xam ne kii da dem di ko fa ziyaare dina la keroog dina la defal ay teraanga yoo xam ne yii ak it gën laa ko ci boppam ba nga xam ne yow yow da nga jaaxle sax dara waralu ko lu dul weeru gàmmo nga xam ne yu ci nga dem ziyaare ji ko mu ne xattaa innal muridina kaanu yataraqabuuna hada al mawsima li yuridu alayhi xaajatihim fa kaana laa yaruddu ahadan fi xaajatihim aw fi xaajatin nee na loolu taxan murid yi Euh, dañ doon bàyyi xel bu baax a baax euh, teruteeg weeru gammo ndax xam nañ ni ab occasion la boo xam ne bii saa bu ñëwee euh, boo demee ci xaadimu rasul bépp aajo boo xam ne bii gaara nga ko ci moom wax ko ko mu dem maanaam ajo ba ak nu mu mën a demee rek maanaam dina la ko fajal ak doomu aadama mën a toll ku ci nekk la nga indi ci say aajo gaaral ko ko ci biir gàmm woowee xaadimu rasul ne ne sa aajo de moom faaw dina la ko fajal nafaana law bi barakaati radiyallahu anhu wa nafana barakaati bokk na ci fonk koo xam ne bii fonkan na ko weeru gàmmo wi ak yëg-yëg bu ci daa am nee bu weer yi demee bay jeex sax bi di ko tàggu tàggu boobu nga xam ne bii weer yi da koy tàggu moom Xaadimu Rasuul da cee am jàqare lool ndax day daal di yëg ne moom mi ngi tàggook loo xam ne li lu bëgg la ci ab xolam di ci am ab yëg-yëg bu baax a baax ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax na su weer wi daa bëgg a jeex nga xam ne mu ngi koy tàggoo maanaam da koy day daal di am njàqare gu mag a mag ci tàggoo googu nga xam ne gi moom weer mu ngi koy koy tàggu te ne ne walam tasudhu mihnatuhu min nafyin wa asrin an ihyaihi wal ihtifaali bihi ne ne nag xam ngeen ne am na ay gàllankoor yu baree bare bare muy dem ak géej gi noonu yooyu ko jàppan ngir ne dañ koy sànki ne ne coono yooyu métit yooyu nga xam ne dañ koo génne réew mi jàpp ne moom maanaam ku ñu jàppale muy prisonnier ne sax noo loolu sax mësta tax maanaam mu bàyyi gàmm maanaam mësta dox diggam a gàmm ne ne lam ca nekk lépp la muy tar-tarak la muy lépp maanaam da daan gàmm maanaam wa kaana yuhyil mawlida sharifa bi tilawatil qurani wa dikri wa kasrati salaati ala nabiyi wa qiraati baadin min madaihi nabawiyati misla muqaddamatul ambaax jazbul qulub mawaahibun naafi'a al barzanji te ne ne lii muy wax nii buñ ci tegtalu rek maanaam dina lu mën a xam ñun ne lii mooy gàmmo nii may wax nii ne nii la xaadimu rasul doon gàmmo kon nañ koo teelu bu baax ba koo xam ne ki bëgg nga gàmmo dundal guddi googu te di ko roy ci xaadimu rasul nii mu ko doon def maanaam nga jéem a jaar ci yoon wa na ne moom mi ngi doon gàmmoo ci maanaam jàng alxuraan di ca jàng alxuraan ca guddi ga lu baree baree bari waaye itam da ca daa zikkar di tudd yàlla lu baree baree bari waaye itam da ca daa def julli ci yonente bi yu baree baree baree bari waaye tamit daana ca boole di jàng xasida yi nga xam ne yi maanaam lu ràññeeku la ci gàmmoo muy muxaddamaatul am daax da ko ca doon jàng lu baree bari jëzbul xuluub mawaahibu naafiha al ak boo ñuy wax Al-Barzanji yu da ko doon boole ci gàmmoom nga xam ne eh, képp koo xam ne kii daal bëgg nga gàmmo programme gàmmoo ngoog mën nga koo organiser ñii nekk ca alxuraan ja ñii nekk ca yàlla ga ñee nekk ca salaatu ala nabi yi ñi nga xam ne ñi kii nañu itam ñu nekk ca xasida ya ñu fexey tànn xasida yi muy muqaddamatul am daax jazbul xuluub mawahibun naafi ak albarzanji yi am na nu nuñ koy terale programme boo xam ne bii ñoom ñi ñëpp dañuy ànd di ko jàng buñ jàngee dara ci euh, mawaahibu dañ koy def ay kuréel bu ñuy kuréel gi jàngee ay bayit ci mawaahibu daal di taxaw ñeneen ñi beneen kuréel bi daal jàng ay bayit ci muqaddamatul am daa daal di taxaw ñeneen ñi maanaam beneen kuréel bi jàngat ay bayit ci jësbul xulub daal di taxaw ki nga xam ne kii moo yor barzanji bi maanaam daal di cay jàng ay bind yoo xam ni moom itam am na fu ñu ko yewale ba fu muy daanoo nee na nii daal mooy programme u gàmmu kon yal nañu yàlla doola defal tawfiq di jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doolu ñu dimbali bu baax a baax ñoo ngi jégalu bu baax a baax nag di ziarewaat ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullah